ne waaw góore waa ansaar yi ñoom de seen diine seen kersa terewu leen laaj seen diine kon nag ci loolu rek cadre boobu la ñu jóge incha allahu di jàppalanteeg yéen ci benn tomb ñu bëgg incha allahu yàlla subhanahu wa def ci tawfiix ba ñun ñëpp buñ fi jógee melokaanu jullit bu jigéen day daal di leer ci ñun te ñu fexe pare incha allahu pour jëfe ko yàlla na yàlla yombalal lu nu mel kan oustaz fal yatafaddal maskuur rahajur in alhamdulillah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 sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullah nu ngi sant sunu boroom ci xéewalam yu màgg yi te landi mu koy ñaan mu sotti ay waamee xéewal ci sang ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ci saxaabaam ak waa këram ak képp ku topp seenu njub ba keroog pencum yàlla ginnaaw loolu xam naa dinaa am ñaari muqaddima yu ma jiital bala ma dugg ci thème bi dëgg-dëgg mooy ñaari introduction benn bi dama koy tibbee ci li suñu mbokk mi wax sëñ Cherif Sow ci ni dañoo gis jigéen ñi dellu gi ñu dellu ginnaaw ci diine ñu bëgg ñu dabe loolu moom xam naa sopp lisaan la mooy làmmiñ wu rëcc la wa illaa jigéen ñi moom ay jàmbaar lañ ci lislaam bal bari na sax jigéen ñoo xam ne ñoo raw fuuf góor ñi ci lislaam kon xëy na lii seenu kay la rek ñoom ñoo aye tey bu subaa it ñeneen ay ala kulli xaal ñaareel bi it mooy ñu xam ni séminaire bi dañ ko gën a jagleel suñu mbokki jigéen ñi ndax dañoo am wàll rekk ci tool bi ànd ak ni lislaam moom néew na lu muy tàqalee góor ak jigéen rawatina nag ci buntu jaamu yàlla lépp lu ñu wax ci góor ci jaamu yàlla rek day xaw a valable ci jigéen kon moo tax beral jigéen ñi jotaay danay am waaye ci bunt yu xat-xat lay am loolu nag ñu ko royee ci yonent bi sallallahu alayhi wa dafa am bis as ndaw kar ko ni ko nun dey danoo bëggoon nga wutal ñu jotaay ci say jàngale muy jàppaleen leen bis boo xam ne jigéen ña la cay waxal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu musaan di waare rawatina ci daje yu mag yi mel ni jullit koor korite wala tëbaski so waaree góor ñi ba noppi day jàll ba ca sàppes jigéen sa mu taxaw ci seen kanam di leen waar asaafa u saafa ul xadday ni xadis boobu du xadis bu ñëw saxi muslim ci xadis abi hurayra leeral na ko ca leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon waare ba naan tasaddaqna wa aktharna al istigfaara fa inni raaytukunna akthara ahli nnaar kon rek ci ala hada al minwal allah wa baadu mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala bi mu bindee doomu aadama daf koo defal teraanga ci li mu bind sunu borom moo ni wa laqad karramna bani aadam wa xamalnaahum fi lbarri walbaxri wa razaqnaahum min altayibaati wa faddalnaahum ala kathirin mimman xalaqnaa tafdila sunu borom nee na maa teral doomu aadama loolu doomu aadama ko bokk képp doomu aadama rek loolu nga xam ne mooy alkaraama al te mooy teraangay suñu borom jooju yaa nga ca biir moo xam góor nga moo xam jigéen waaye sunu borom dellu nag ci teraanga jooju yi mu bàddil ci jigéen cër bu rëy beral ko ko ànd ak dugg na ca cër bu njëkk ba waaye nag daf koo cëralaat geneen cër goo xam ni moom dong la ko cëral ndax su nit ñi doon lu ñuy jëfandikoo moo xam na xeet bu mu doon ca la ñuy jëfandikoo fañ koy defaree di ko fa toggee jigéen la xamuñu ca la tàmbalee ca ginnaaw yonent yàlla aadama ku fi ñëw te jigéen juru xam nañ moom ku juddu te amul bàyyi yontu yàlla isa te mu wér waaye ginnaaw maam aadama ak xawa xamuñu kenn kuy dund ci kaw suuf lu dul ni moom jigéen la fi moo tax sunu boroom buy dénk sax nit yaay la koy dénk wa wassayna al insaana bi walidayhi xamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaaluhu fi aamayni an iskur lii wa li walidayka ilay al masir sunu borom nee na maa ngi dénk nit ñaari waajuram xam ne góor la ak jigéen waaye mu seppee ci jigéen nag ni xamalathu ummuhu wahnan ala wahnin mu ne ko nga bàyyi xel sa yaay ndax moo la ëmb cib coono imbi la cib coono boot la ñaari at sant ma ak say ñaari waajur ndax yéen ñëpp nag ci man ngeen di dellu si nga gis ba tey bàdd gi nga xam ne ak beral gi nga xam ne yàlla beral la ñu ko loxo ba mu tuddee ñaari waajur mënoon naa ba mbëstal rek wax li muy wax waaye da caa seppeewaat jigéen moo tax dafa war a ñu yittewoo mbiram bu baax a baax sàmm ko watt ko ndax mooy cosaanu nit nit berso ba jigéen la su baaxee xeet wam bokk bu baax waaye it bu nekkee ca sofaanum baax noonu rek lay demee yàlla nee na wal baladu tayibu yaxruju nabaatuhu bi idni rabbihi walladi xabusa laa yaxruju illa nakida kadalika nusarrifu l ayaati li qawmi yaskuruun sunu borom nee na suuf su baax moom gàncax bu baax rekk lay jur suuf su buy yi mooy suuf su baaxul du génn lu du ay pooge kadalika nusarrifu l ayaati li qawmi yaskuruun kon ginnaaw njaal benn laltaay googu yi ñu ngi fas yéene waxtaane benn dem bu am solo lool waxuma nag ni man li may wax dafa am solo waaye dama ne thème bi ci boppam moom am na solo ala kulli xaal te mooy sifaatul maratil muslima melokaan wi yell jigéen mel ni donte nag loolu lu yaatu la waaye dinaa wax man la ma ci jukki rek ngir fas yéene koo fàttalante ak yéen la ca des ñu jàppal ko idda ba beneen yoon kon mbooloo mi nga xam ni moom mooy jamiyatu al tarbiyati wal irshad di mbooloo muy yar di jubbanti ñoo taxawal séminaire bi ngir jukki benn tomb ci tomb yi leen soxal ci seen wàllu diine comme niñ ko doon jukkee ci yeneen i daje waxtaan wi nag ñetti tomb rek laa ko def tomb bu njëkk mooy waqafaatun tamhidiya fi ma bayaani makaanatil mar'ati wa dawruha fil mujtama ay taxaw seetlu yoo xam ni dafay aju ci wàccuwaayu jigéen ci boppam ak taxawaayam bi mu am ci biir xeet bi mooy rôle bi mu am ci biir société bi ñaareelu tomb bu mooy limaada xtalafat nisaau hada zaman an nisaai jiilil awwal lan moo tax jigéeni tey wuuteeg jigéeni démb ñetteel bi mooy wadu baadi xululin lil inxiraafi suluki fi baadi nisa jéem a seet nag ay wuntu yu ñuy ubbi ngir jéem cee jàngat njuumte yi nga xam ne dafay dal ñenn ci suñu mbokk jigéen ñi alwaxfatul ula al unsur al awal bi mooy waqafatun tamhidiya fi bayaani makaanati al mar'ati fi l islaami wa dawruha fi l yoo xam dañ koy taxaw di ko seetlu ci dëgg-dëgg jigéen wàccuwaay bi mu am ak taxawaay bi mu war a am ci biir xeet bi al waqfatul ula makaanatul mar'ati fi l islaam wa wasnuha thaqil fi shariati l islaamiya maanaam wàccuwaay wi nga xam ne jigéen am na ko ak diisaay bi nga xam ne moom la ko lislaam jox mbokk yi jigéen wàccuwaay wu kawe lool la am ci lislaam ndax mooy grain bi nga xam ni mooy meññi aw askan mooy lekkool bi nga xam ni ci la ñuy former ñépp ñi nga xam ni ñu war a taxaw àdduna waykat ba dafa wax ni al ummu madrasatun ida aadattaha aadatta shaaban tayib al aaraq nee na jigéen la soo ko waajalee waajal nga école waajal nga aw xeet bu baax waaye wala fet lépp ko jigéen jàngaaniwul nday jaay sëriñam mooy wax ji rek jigéen jàngaaniwul nday jaay sëriñam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci jigéen ndax xam gim xam bu jagane li muy jur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man yali min hadihi albanat shay'an fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran min annaar nee na képp ko am njaboot bu jigéen nga rafetal jëme ci ñoom ëllëg danañ dox sa digganteeg sa wala lii yonent bi ci jigéen rek ko te nit ñi dañuy jur ay jigéen di jur ay góor lan nag mooy al ihsaanu ilayhim doom ju jigéen yaram ko rafetal ci moom lan la bokk na ci la ñuy wax tasi taxsinuhunna min al fasaad fexe ba protéger ko ci lépp lu yàq wa min al manahij al haddaama ak ngir yi nga xam ne dañuy jóg di yàq diine wa taalimuhunna taaliman saxiixa ak yar leen yar bu jub wa taswijuhunna min alsaalihin ak fexe ba teg leen ci loxo yi ñu baax ndax jigéen loo ko yar-yar loo sonn sonn ci moom loo mën a def ci moom soo ko jëlee teg ko ci loxoom ku defaruwut walla ku amut diine la nga defoon lépp moo yàquwaat ndax di jigéen ci diine yi jëkkëram la nekk kon min al ihsaani ilayhin na min alsaalihin loolu mooy alwaqtul ula alwaqtu thaniya ci mbirum jigéen mooy yàlla dafa seddale àdduna tranché ko te juumul nag ku nekk mu ne la féeteel fii yaakaar naa ni it nag liy dox ci àdduna bi yépp it wax dëgg yàlla noonu lay doxe même société yi sax boo demee da fekk ku ñu naa la mooy directeur général bi walla wala ñëpp ay directeur général la ñu doon déedéet département bu nekk am ku ko jiite noonu nga koy topp di ko topp ba gardien ba nga xam ne moo nekk ci buntu société bi di garder sax ci équipe bi la bokk te moom bu fa nekkul woon mën naa am directeur ba nekk ca kaw du mën a liggéey kon nag bu fekkente ne àdduna dañ ni déedéet na ñëpp doon ay directeur euh, général ndax yow mii nga xam ne yaay gardien bi toog fii du baax directeur bi fee mu toog fa war fa nga war a toog ñoom ñëpp ñuy xëccoo siège u directeur bi dara du sotti faaw bu ku nekk fa sa compétence nekk ñu teg la fa ngay liggéey nag liggéey boo xam ne ensemble lay doon looloo tax sunu borom tànnal jigéen kër ni ko yow kër laa la dënk kër laa la dénk nag bul jàpp ne mooy toogal ci kër gi di nelaw ak tëdd di yore portable di cliquer fu ne nga dugg fa déedéet waaye mooy ñi war a génn defar àdduna li ngay wuti yow di damaa war a dem am métier damaa war a dem liggéey ñooñu nga xam ne ñoo lay jël pour nga liggéey yow lañ lay sant pour nga defar leen yow loolu mooy dégginu toogal ci kër gi toogal ci kër gi waajal njaboot gi yàlla moo tax ci biir alquran da nga cay fekk lu bare bare muy lënkale jigéen ak kër xam ne bu tuddee jigéen rek day tudd kër yàlla nee na fii waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jaahiliyatil uula sax leen ci seen kër yi te bañ di génn di taxawaalu comme ni ko ceddo yu njëkk yi daan defe fii bu yutukku na la wax toog leen ci seen kër yi yàlla dellu wax ni wazkurna maa yutla fii buyutikunna min ayati llahi wal xikma inna allaha kaana latifan xabira dee leen jàng alquranul karim ak di tudd yàlla ci seen kër yi inna allaha kaana latifan xabira yàlla dafa ñeewantal waaye yàlla dafa xam li xew ndax moo bind lépp lu xew ba tey fuy buy tukk na ngi noonu yàlla del wax ni laa tuxrijuhunna min buyutihinna wala yaxrujna illa an yatina bi faaxishatin mubayyina wa tilka xududullah bu ne leen génn ci seen kër yi même bu dee fasa ngeen leen sax tey it ñoom bu ñu génn lu dul nag ñu nekk fa di indi lu bokk ak la kër ga war a doxe yàlla ne toog ci kër ak def lii ma wax mooy àttab yàlla aaya yi soo ko xoolee da ngay xool ban relation la jigéen am ak kër ba fa yàlla tuddee jigéen rek tudd kër kon na nga xam ne am na ñoom ñaar relation bu dëgëra dëgëra dëgër jigéen ñi baree bari kër yi nekk moomuñu ko seeni kër yi boroomi kër la waaye kër yi yàlla ñoom la ko moomaleel ndax lan ndax fa la leen yàlla placé football sax day am gardien de but bu ko fa jaaxum am ci waaye bu ñu ne de but bu toog ci kaa yi yow dëbal ci biir bu ñu leen jekkoo rek caaf yi caax yi xam di jigéen ñi ñooy gardien de bii ñoo ne war a taxaw ci kaa yi di balaa biir dugg bii yu bari yépp mooy gardien fi na nii nekkatuñ ci camp yi waaw dañoo war a nekk ci camp yi nag sunu borom subhanahu wa taala aayaat yi mu tudd yépp day wane wane gu am solo ni jigéen dalwaayam bi nga xam ni mooy bi ëpp ko sécurité ci moom mooy kër ba tax na génnam sax l'islam daf ko encadré mais góor moo amul benn encadrement bu yàlla def ci moom ndax góor biti la ko yàlla biti gi moom fa la war a nekk may wax ni même sax njaay àll yeeg njanaaw bàyyi bàyyima yi njaboot moom bu sew ba ci bàyyi ministre yàlla jigéen la ko dénk xar yéeg bay yéeg koo ci gis muy lu tuuti yaaja rek lay topp ginaar yi boof ginaar bu jigéen dong lañ mos a gis muy boof ah mosuma gis bu góor muy boof picc yi bu jigéen gaay boof gu góor gi dem di wuti xont di indi kooku xikmatullahi azza wa jal loolu xikmaab sunu borom la kon bu ñu waxee jigéen ñi leen toog leen ci kër gi du mooy toog leen di tëdd nelaw amu leen métier waaye dañu la wax ni métier mi gën a jafe yéen la ko yàlla dénk ba tax na jigéen su génnee te amut lu tax mu génn la chaque ni danse publique la jigéen ñoo xam dañuy toog rek ba mu neex la ñu génn rek noonu di taxawax ci mbedd mi loolu danse publique la ndax seytaane ci boppam mën na cee jaar yàq lu bare bare ndax lu nit bëgg a def ak ñaawteef bëgg koo def bëgg koo def boo ko gisul boo gisul koo ko defal loo ko def bu ko nekk toogoon sa kër rek restez vous yooyu ñu doon wax restez chez vous lañ koy wax restez chez toog leen seeni kër gis nga bi ñu ko defee jàmm da ñooy mbedd mi kenn nekku fi kon restez chez vous ba tax na julli ak li muy am am solo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne jigéen jullee biir néegam xam nga jullee ci biir ëtt bi de waaye jullee biir néegam moo gën mu génn ci biti di jullee ji ca jàkka ji xadisu umu xumayd asaidiya radiallahu anha dafa ñëw ni yonent bi damaa bëgg di ñëw di jullee si ci jàkka ji jóge sama kër romb sama koñ ñëw ci jàkka ji di julli si yonent bi sallallahu xam naa loolu ci yow ci lu baax waaye nag xamal ni julli gi ngay julli sa biir kër moo ëpp aw yiw gën ci yow fuuf julli gi ngay jullee ci sab ruum sab ëtt waaye julli gi ngay jullee ci sab ëtt moo gën julli gi ngay jullee ci bayal bi julli gi ngay ci bayal bi moo gën julli gi ngay jullee ci jàkkay waa koñ mu ne ko jullee gi ngay jullee ci sa jàkkay waa koñ moo gën julli gi ngay jullee ci fii sama jàkka ji te jàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn raka junni cay wecc bis bu nekk rek mu koy wan ni ko noo gën a jege sa kër rek jullee fa moo gën ànd ak nag jigéen di julli si jàkk ji moom waxuñu daganu ndax kay dagan yonent bi ne laa tamnau ima allahi masajid allah bu leen tere jaamu yàlla jigéen ñu julli si jàkk yi même ba ko Saalim waxee ne leen di tere Omar ibnu Abdul euh, Abdullah ibn Omar da koo wax wax joo xam ne nañ keroog lañu mës a dégg mu wax wax jooju ndax Abdullah ibn Omar dafa nettali ni yonante bi neen la tam na ima allahi masajid allah bu leen tere jigéeni yàlla yi jàkk yàlla mu ne man de dama koy tere jigéen sama jabar du julli ji Amar keroog Abdullah ibn Omar wax na ko keroog wax joo xam ne nee nañ keroog lañu mës a dégg mu wax ko mais ànd ak ne yaa Aïcha radiyallahu anha nee na bu yonante bi gisoon ni jigéen ñii di demee jàkk di leen ko tere bu yonent bi gisoon nii jigéen ñii di demee jàkk dina leen ko dina leen ko tere waaw nañuy deme ca marché ba nag nañuy demee feneen ak nañuy demee feneen wallahu mustaan kon waqfa boobu li muy ter traité traité wu ne jigéen ñi bu ñu génn seeni kër dañ leen fay tëj di leen yeew déedéet loolu kenn wax te loolu mënut a nekk sax waaye dañuy wax ne al maqarul aaminu laha mooy këram saa yi su aajo amee nga génn su aajo jeexee nga dellu si toog waaye toog gi it du mooy toog ci kër gi rek waaye liggéeyu kër bi tàmbalee ci yar doom yi jox leen yitte kooku yow lañ ko sant ba tax na nag faaqidu shay'in laa yu'tihi ki nga xam ni moom dafa war a defar day fekk mu defaru na ba noppi moom moo tax ñu war a sonn ci sunu doom yi jigéen ñi ba ba ëllëgee bu ñu leen yóbboo kër ñu xam li ñu leen fi indee lu mu doon al waqfatu saalisa dawrul mar'ati fil mujtama taxawaay bi nga xam ne nag jigéen war na ko am ci xeet wi société bi ak jeexintal yi mu war a am su fekkante ne jaar na ci aw yoon ndax man nga ni rôle bu am solo bu jàll rek bu tegu ci aw yoon rek mel nañ ni jigéen ju baax moo nekk ci ginnaaw di puus ñu naan góor gu nekk xamu daan xamu nu ñu koy waxee derrière xamu lan jigéen benn ñeent la war a bu ñeenti nekk ci ginnaaw day gën a gaaw jenn góor bu nekkee ci kanam ñeenti nekk ci ginnaaw di puus dina gaaw te dina tegu ci yoon naam yooyu dinañ ko séddale ci tomb yi di bëgg a ñëw tomb bu njëkk mooy dawrul barati fi tarbiya fi tarbiyatil ajyal jigéen ak rôle bi mu am ci yar jigéen yar la wuñ ko bu muy buy yar na gëm ni moom aw xeet la yar am génération ci boppam la yar amul benn boroom xam-xam bu ngeen di dégg ci àdduna ci diine ji ñu nekk lu dul jigéen a ko jàng moo ko yar moo ko jur moo ko taxawu ci ak ndawam mu am ci ñoo xam ne sax seeni ndey yemuñu ci yar leen rek waaye dañ leen taxawu ba jàngal leen wala ñu teg leen ci yoonu jàng boo xam ne tey jii xeet bépp jariñoo nañ ci mu ñu ci doon jël ay misaal imaamu Malik rahimahullahu taala imaamu Malik nee na sama yaay bi ma xàmmi koo rek daf ma daan xëy sang ma ba ma set kaala ma kaala bu rafet ni ma demal ci jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo demee nga laaj dafa góor gu ñuy wax rabiatu rayi soo demee nga toog foofa jàng ab yar ba noppi boo jàngee yar ba xam nañuy jàng ba pare nga jàng xam-xam neen sama yaay loolu la ma daan wax idhab ila rabia fa taallam min adabihi qabla ilmihi loolu ñëw na ci tartibul madarik imaamu Shafii nee na sama yaay ndax moom jirim la woon bi ma demee ba war a toll ci jàng nee na amut woon dara waaye teewul woon mu ma doon ñaax ci may jàngi nee na ooma lu ma jënd ay kaye waaye dama daan wër der yi ak yax yax bu ma gis rek ma for der bu ma gis ma for xoos ba mu set nee na bu ma demee ci jàkk ja jàngi soo bindee ci yax gi ba mu fees nee na amoon nañ daalu mag suñ kër fa laay dugal yax gi yax ko bu ma bind ma fees ma dugal fa nee na bi ma jàngee alquran ba noppi su ma xëyee mën ma jógal nga dem jàngi ma xëyee ma ñëw ci sëriñ bi bi jàngale xam-xam ndongo yu ndaw yi ma koy jàppale di leen jàngal su paree dama jàngal xam-xam imaamu Shaafi'i mi ñu xam waaye imaamul Buxaari rahimahullah imaamul Buxaari am na ñu ni dafa judduwaale wul ay bët almuhim bi mu nekk xale daal gisutoon waaye nu yaayam daan def da daan julli di sukk ay wóomam di ñaan yàlla di ñaan yàlla di ñaan yàlla di ñaan yàlla ba comme ni ko imaamu az indi ci siiru a'laami nubala bi muy tarjumaal imaamul Buxaari yi mu jële ko ci Ahmad ibnu al-Fadl al-Balxi mu ne dégg naa sama bàyyi di nettali ni Muhammad ibnu Ismaayil al-Buxaari rahimahullahu taala dafa ñàkkoon ay bëtam bi mu nekkee xale waaye nee na bari ñaanu yaayam bis dafa gént gis sunu maam ibrahim alayhi salaatu wassalaam ibrahim ne ko yow de sa doom ji bëtam yi yàlla delloo na ko nee na bi mu nee na li kasrati bukaiki aw kasrati duaiki shakkal balxi ci bari gooy jooy ci sa diggante ak sa borom ak bari gooy ñaan yàlla di toroxlu nee na fa asbaxna wa qad radda allahu alayhi loolu loolu la ñëwee ci seeru alaami nubala loolu jigéen na ko nga xool nag jigéen ñooñu ak ñu bari ci suñu jigéen ci am sax yow dëgëru sa sa doom feebar dong ngay ñaan yàlla bu xewul rek man ngaa daal di jàdd def leen loolu lu taxoon mu di ko def résultat bi tey ñépp jot nañ ci amul benn jullit kaw suuf ginnaaw Buxaari yi lu dul ni am na loo jariñoo ci xam-xamu Buxaari benn mu génn xaalis booy jaamoo yàlla wala leneen kon fadluhu al am ka ko doon taxawu di ko ñaanal ñaanal yàlla di ko tinnu ca yàlla jigéen la woon muy dayam kon dawrul mar'ati fi tarbiya yar دور المرأة في التعليم bi jigéen war a am ci jàngale ak cultiver loolu lañ koy wax parce que Moustapha dafa yàkkam rek ma wax ay baati tubaab ba mu reetaan ma waaye tey moom dooma la insha allah naam dawru mar'ati fi taalimi wa tasqif jigéen jàmbaar ñayu xare sa doom bal nga koo jël di ko teg ci loxoy góor lu mu gàtt-gàtt ma war naa fere ijji ci yow lu mu gàtt-gàtt jus an fil qur'aan war na ko mokkal mooy amayata ba naasi lu mu gàtt-gàtt moom boo dawee ba àgg foofu moom dëgg yàlla jàmbaar dëgg am na nañuy romb foofu réew mi ñuy wax gànnaar néew na ko fa mokkal alquraanu karim lu dul sa yaay ngay mokkale alquran jigéen ñee jàngale alquran jàngal la siira ay quratul absaar ak yooyu ba nga dëgër nga doog a dem ci góor ñi xam ne yow booy génn ci làngu jigéen ñi day fare yow départ am nga départ bu am doole ñu baree bari seen yaay leen jàngal alquran ba sëriñ bi ma jàngal yaayam ak tàntam ñoo ko doon ñoo ko ko doon seq ñaari meer ñoo ko jàngal alxuraan jàngal ko lu bare bare bare bare ci siiratu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak téere yu ndaw ndawaan xam ni nee nañu moom yaayam ci boppam da jaax bu Muhammad ibn Ali taxawee ne yorub xalqaam di jàngale xalil laa wax de xalil ibn Ibrahima al Isxaaqi al Jundi meer baa nga fële moom it ci xal ñu dëkkale ko ñaari xàll góor gi nekk fee meer bi nekk fee sëriñ bi dëkkal googu day baax loolu nag juhdu ak ijtihaad moo koy maye waaye bu ñu yéegee tuuti ci kaw dañuy dem ci kër yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam parce que bi yarul woon ay jigéen noonu rek parce que dafa bëgg dajale ay jigéen déedéet mais dafa amoon jubluwaay bu taxoon ñu mu doon yar ci kër gi mu leen di yar ngir yi kenn mënta xam ci moom lu dul ay soxnaam ñoom ñoo koy xam moo tax am na dundu yonent bi boo xam ni ay soxnaam dong nga ko mën a nettali ndax ñoo fa ñoo ko mën a fekk te loolu xeet bi daf koo soxla moo tax sunu yaayoon Aïcha radiyallahu anha kaanat faqihatan muallimatan jihbizatan boroom xam bu mag la woon jàngalekat la woon saxaaba yi sax dañ daan wuuteeg moom ànd ak ni bi yonent bi faatu 18 ans la fukki at ak juróom-ñett waaye saxaabee dañ daan biijoo ak moom fekk na li wax noonu la moom Aïcha mi ma ci gën a jege mooy jullee néew ci biir jàkk am na saxaaba yu bari dañ ko inkaara mu ni déedéet Usmaan ibnu Maz'un jullee wuñ ko lul ci biir jàkka ji waaye kibaaru saxaaba yi ci boppam dañ koo seedeel lool seede ni Aïcha kenn minute ni moom ci xam-xam Abu Musa al-Ash'ari xam ngeen ko nee na maa askala alayna ashaabu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wala ashaabi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam xadiisun qattu fa saalna aïsata illa wajadna indaha minhu ilma loolu la ko at ci sunan nee na amul jaaxal benn xadis mosu jaaxal benn ci nuñ koy firee ak lu ci yonent bi jublu nee na lu dul ni buñ demee ci Aïcha dana koy faram-fàcceel ba mu leer nañu Abu Musa al-Ashari Masruuq mi nga xam ne yaa Aïcha nday la woon ci moom di sëriñam lu baree bari moo ko jàng ndax nee na man li a Aïcha yoon presque yëpp jël naa ba digg ma ba muy faatu toog naa ñetti at yoo xam ne daanaka ci moom masruux ci boppam nee na raaytu masixata asxaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al akabir yasaluuna anha al faraid sëriñ saxaaba yi ñi nga xam ay sëriñ lañu woon ci ñoom dañ daan ñëw ci yaa Aïcha di ko laaj masalam miraas xam ngeen ni bokk na ci masal yi gën a compliqué suñ ko mosaan a jaaxle suñ ci mosaan jaaxle moom lañ koy laaj loolu ibnu xajar indi na ko ci al isaaba fi tamisi saxaaba ata ibnu abi ata ibnu abi rabaax moom it wax na ni kaanat aïchatu afqaha annaas wa alama annaas wa axsana annaasi rayan fi l amma loolu tamit al isaaba la ñëw nee na Aïsa bokkoon na ci ñun a gën a dégg fiq gën a xam nit ñi ëpp leen xalaat ci wàllu xam-xam mu ibnu Zubayr Urwa ibnu Zubayr laa bëgg a tàntam la nee na maa raaytu gisuma jigéen joo xam ni xam na wàllu médecine ak fiq ci diine wala way arabi ci Aïcha waaye nag wala xarwa parce que koo xam ni Abu Bakar ak yonent bi la seq moom faawu nii rek ngay mën a mel moom ndax li ñu tudde ansaabul arab wa ashaaruhum wa ashaaruhum bàyyam moom moo ci tegoon tànk ci jamono askari arab yi ak seeni way ak seen nangam dañu wax ni Abu Bakar ko gënoon dégg ñépp ci jamono kon ku juddoo foofu yaroo kër yonante bi sallallahu alayhi wa sallam màgge fa faaw nii rek ngay mën a mel waaye nag wolof day lépp loo xam ne day mën xoomu lu tax mu di ko lépp nee na bu for yombee sëgg jafe ñu mën a kott amuñu mbaam léeg-léeg da gis xam ne day yaroo sax ci kërug sëriñ këru boroom xam-xam waaye du mën a xam dara parce que it xam-xam danu loo moom loo xam da ngay seet ka nga gën a bëgg rek nga ne ko kaay mu ñëw nga ne ko taalal la say loxo mu taalal nga ne ko maa la ko sotti mu du noonu bu doon noonu la doom ji nga jur wala ñi nga gën a bëgg ngay bàddil waaye léeg-léeg da nga ñëw ci borom ci daara joo xam ni ka fay raw sax du bokk ak sëriñ daara ba dara waaye nag moo gën a sonn moo gën a bëgg yàlla moom lay jox kon Oustaz Alioune Guèye rahimahullahu taala daf daan wax naan yàlla daal dane ko dogu ma daggal la ko dogu daal yàlla daggal la waaye loo jige jige jige jige nag te bëggoo doo am kon ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci kër sëriñ si nekk ci daara yi nañ gën a góorgóorlu ndax danger bi dañuy jàpp ne ñoom fi ne ne ginnaaw kat yow ci daara sàngam moo nekk yow dara réeratu la di la laaj sax yow ay masal te boo xam yow mi ko la yàqu te loolu nag ak soññee la waaye yaraa waaw moom dansé baa ngi noonu ah soxna saas bi wala soxna sëriñ bee ko def kon sëriñ bi validé na ko te yàlla xam ne boo xam sëriñ dañuy xeex xeex ba mujj mënatu ci dara mu mujj rek nekk ci téere moom bàyyi ak yàlla li ci des mu loolu kon yow mi nga xam yaa nekk ci daara ji nekk ci kër sëriñ bi nekk ci wetu jàngkat bi nekk ci jàngu bi waaye fexe la góorgóorlu boo góorgóorloo yàlla dana la cëral waaye loolu sëriñ bi bëgg bëgg bëgg na te nangoo jàng wax dëgg yàlla moom amut lu muy yàkkal kenn ndax moom li am yàkkaluñ ko xam-xam des ko yàkkale da nga koy jàng rek mën koo xam ala kulli xaal loolu tax yaa Aïcha bokkoon na ci li taxoon mu mel nii mooy daan laaj Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu dañ ne ko bi ma nil tal ilma mu ni bi qalbin aqulin wa lisaanin saul xam-xam bu bari bi noo def ba am ko mu ni xel mu mën a jàpp ak làmmañ mu mën a laaj moo war da ngay jàng ay xadis yu bari baree bëri wala ay qissa yu bari nga dégg yaa Aïcha ni maa ko njëkk laa laaj yonent bi masalatu ruya ndax yonent bi ba mu demee ca alxadratu qudsiya ndax gis na yàlla am na ñu ne gis na yón yón yaa si ni yonent bi mu dikkee loolu laa ko njëkk a laaj nee na maa ko fekkewul jamono jooja waaye am na ci aaya bu ci ñëw nee maa ko njëkk a laaj aaya boobu mu ni kooku jibril la waaye du yàlla laqad raahu nazlatan uxra nee na bokk naa ci ñu ko njëkk a laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma ne ko hal raayta rabbak mu ni nuurul an na araahu raaytu nuur kon laaj da daan laaj da daan laaj yonent bi laaj bi bare bare bare bare nangam luy nangam nangam luy nangam nangam luy yonent bi di ko wax moo tax bi mu fi jógee moom kenn ko ko raw amatul kon dawrul mar'ati fi taalim wa tasqif yaa Aysa daa yoroon ab ab jàngu ñi ñëw di jàng si ci moom ñi ñëw di laaj kon nag jigéen ñi bu jàpp ni ñoom it waru ñuy lal ay xalqa yu mag di toog di jàngale bu kenn jàngul jàng si wulit nga jàngal sa njaboot yow almihwaru thani limaada ixtalafa wax waxda zaman an nisaai jiilil awal lan moo tax jigéeni tey wuuteeg jigéeni démb walla wuute wuñ mu ne wala wuute wuñ maanaam suñu jigéen ñii ñu am tey jii loolu nag pour ma wax comme maa ngi delluwaat di wax lii du acharnement daal du singili góor yi tey jii tamit meluñu ni góor yi démb pour ngeen jàpp ne ñun acharnement dañuy def ci yéen déedéet góor yi tey yii tamit bu ëllëgee ba ñu def dawra ci góor ñi question bi dinañ ko indiwaat waaw góor yi tey ñi lu tax meluñu ni góor yi démb pour ngeen jàpp ne ñun dañ leen di singili ñii moom lu ñu wax rek nangam déedéet waaye tey yéen a aye ku aye nag wal sa aywa bisimilah kon loolu question la boo xam ne pour ñu tontu ko <coughs> foog ñu def muqaarana diggante jigéen di démb ak jigéen di tey foog ñu def benn comparaison diggante dundub jigéen ñi ci seen wàllu diine ak jigéen di démb seen wàllu diine ak ni ñu daan dund ci seen wàllu social ak ci ni ñu daan yare su boobaa ci lañuy xool nag diggante bi nga xam ne moo dox ci diggante jigéen ñi tey jii ak jigéen ñi démb yee nga xam ne ñoo juróon ay jàmbaar yu soppi jamono ponkal yi ngi fi dégg yépp ñu soppi jamono ba taarix bind leen te kenn dootu leen di fàtteeti ñenn ñi ay jigéen leen yar jàngal leen xaafis ibnu xajar bi muy nettali ay sëriñam tudd na juróom-ñett ñoo xam ne ay sëriñam la yoo xam ne daan jàng ci ñoom waaye nañ tàmbali xayaatuxun na fil ibaada jigéen ñi démb nuñ meloon ci jaamu yàlla suñ ko waxee rek jëratul ñu naan jigéen ñi tey nuñ mel ci jaamu yàlla parce que fa min duddiha tatamayyazul ashyaa maanaam mbir moom boo waxee ab sofaanam rek ka dana xam place kon moom nu mu fay dem jigéen ñi démb dañ daan rawante góor ñi ci julli ak woor ak mbooleem jëf yu baax yi ak mbooleem jëf yu baax yi émancipation de la femme noonu la parité ci jame yàlla ñoom duñ ko taxqiqoon yàlla wax na ne innal muslimina wal muslimaat ci jaamu yàlla jullit ñu góor ñi ak jullit ñu jigéen ñi wal muminina wal muminaat ñu gëm ci ñu góor mu ne jigéen ñi wal qaanitiina wal qaanitaat taxawkati guddi yi di julli góor ñi ak jigéen wa saadiqiina wa saadiqaat ñi dëggal ci góor ñi ak jigéen ñi wa saabiriina wa saabiraat muñkati góor ñi ak jigéen ñi wal xaashiina wal xaashiaat ragal ñi ragal yàlla ci góor ñi ak jigéen ñi wal mutasaddiqiina wal mutasaddiqaat saraxekat yu góor yi ak yu jigéen ñi wa saaimiina wa saaimaat woorkat yu góor yi ak jigéen ñi wal xaafidiina furujahum wal xaafidaat ñuy sàmm seen bopp ci góor ñi ak jigéen ñi wa daakiriina allaha kathiran wa daakiraat ñi tudd yàlla lu bare bari ci góor ñi ak jigéen ñi mu ne aadda allahu lahum magfiratan wa ajran azima kon góor ak jigéen foofu góor ak jigéen la yàlla wax ni ñoo ñoo tolloo yàlla moo seedeel góor ñi ak jigéen ñi ci tolloo ci wàllu jaamu yàlla ak jege ko waaye nag ñoom ci boppam nuñ ko dunde woon jigéen yonent bi ak jiilu saxaaba ak man baax baadahum ñu ñëw seen ginnaaw dañ ci jël ay misaal yu gàtt rek ndax waxtu wi buñ tàmbalee ci kër yaa euh, ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam ndax mooy modèle bi <coughs> kër yonent bi mooy modèlu kër yépp ndax ñi gënoon fa lañ nekkoon ña gënoon fa lañ fa lañ nekkoon sunu ndey Xafs Xafs bint Omar ibn al-Xattaab radiyallahu anhu radiyallahu anha yaa Xafsa jaamukatub yàlla la woon woorkat la woon waaye rek xawoon naa fiir nag fiiraa gi bu xaw ëpp loolu rek moo nekkoon jafe-jafem te loolu lu normal la jigéen fiir lu normal la comme góor fiir lu normal la waaye wolof dafa am lu mu lu mu lépp ci fiiraange dafa wax ni fiiraange am néeg la jigéen ñépp cay fanaan waaye dof yaa cay biddanti maanaam fiiraange am néeg la jigéen ñépp cay fanaan waaye nag dof yaa cay biddanti ndax man ngaa fiir nag ba mujj daal di jàll ay bornu nag muy niitu goo xamante ne lakkale la lay jural fiir gi lu mu bari bari nag na xel mi nag ànd ak fiiraange gi ñu ànd ñoom ñaar rek dara du dara du problème du am mais yaa yaa xafs fiiraangeem googu taxoon na yonte bi yiwi ko mais yàlla moo ko fay li moo ko kii du ko ñëwacc innaha sawaamatun qawaama illa boobu rek la indi kii jullikatu guddi la woorkat la maanaam mënoo am ku ko gën bi maana shahaadatullahi azza wa jalla laha yàllaa ko séedalee innaha sawaamatun qawaamatun kon nag suñuy jigéen ñoom ñu xool seen bopp ci diggante siyaaxatul mubaalaga la faalatun waxul saaimatun xaaima la sawaamatun qawaama kuy jóg guddi di julli la kuy woor bëccëg la fay la ko moo tax buñ mosaan di seen coow kër yooyu rek mu leen yéen moom yonent bi yéen pour ci nekk boo tasee sa waa kër sa bàyyee lay fay li man yàlla moo ma fay li <laughs> waaw garanti la am yow moom duggal te a génnati teg ci ni fa innaha zawjatuka fil janna kii yéen ànd ba àjjana kooku garanti la am kooku moom yàllaa ko delloo si dugal ko ci kër gi defal ko garanti ni ko yow moom xam koy génnati waaye dootoo génn ñu jël soxnaam si nga xam ne yàggul ko muy Zeynabul Kubra umul masakin umul masakin jaamukatu yàlla la woon ci wàllu saraxe sax moo tax ñu koy dàkkante la umul masakin moog yonent bi yàgguñu kanamu yonent bi la faatu yonent bi ñaari soxna rek ñoo faatu ci kanamu Xadija ak Zeynab umul masakin ñu ko tuddee Zeynabul Kubra bokkul ak bu Soxra di bintu Jaxsin mi nga xam ne moom la mayoon Zayd moom ci jaamu yàlla ci julli da daan dem ba ci jàkk ji day takk ay buum su jullee julli julli ba tànk yi toq mu taxaw jàppandu ci buum gi yonente bi ñëw bis dugg ci jàkk ji gis ñu takk ci ay buum ni lii lu xew ñu ni ko Zeynab de moo fi takk buum yi ngir di ci jafandu di julli mu ne ah jaru ko nag ñeel ko bu sonnee rek mu toog ndax yàlla moom saa yi soo ñëwee fekk ko fi noonu boo ko loolu topp noonu nga koy toppe ci saxaabiyaat yi ak ñi ñëw seen ginnaaw ci seen jaamu yàlla niñ ci meloon umu amaara yéen ñëpp dañ koy dégg nasiba wala nusayba kooku waxuma la woon yem ci julli waaye dadaal ñu yor jaasi di xeex yawmul yamaama bis bi ñuy deflante kooku doon woote ne ab yonante la keroo lañ dagg loxo bi ci xeex jigéen la am jigéen waaw jigéen xam ne boo ko gisee ci biir front bi da ngay jàpp ni góor la Musaylimatul Kazzaab wa jax afiluhu ñoo dagg loxoom boobu boo ko doon topp di jeex kon nag soo xoolee ñu xool ñii nag day gis ni ñee moom mënoon nañu jur ñee waaye ñii it mën nañoo jur ñii ñii fi nekk nag moom ñun ñëpp leen gis wallahu musta'an li ci des mooy xayaatuhunna <coughs> fil xayaa mag ñu njëkk ñi ak jigéen ñu njëkk ñi ak kersa dundu kersa dundu kersa maanaam jigéen su woowee bët rekk maanaam maanaam mbedd mu solo na nga ko teggi ndax jigéen force am rek mooy kersa am jigéen ju am kersa moo tax yàlla ba muy nettali ci doomi ju baax jooje am ñu yonent yàlla Suayb la mooy saaxibu Madiyan ba nga xamante ni Moussa alayhi salaatu wa salaam defal na leen njëkk falammaa warada maa'u madyana wajada alayha umma wajada alayha ummatan mina naas hmm, yasquun wa wajada ma duunihim imra'atayni tazudaan qaala maa xatbukumaa qaalataa laa wa abunaa shay'un kabiirun fa saqaa lahumaa thumma tawallaa ilaa dhill comme ni ñuy sotu alqasas ñaari jigéen ñoo ñooñu nga xam ne Moussa daf leen defal teraanga fekk leen ñu néew doole mënuñoo root. mu rootal leen ñaari jigéen ñooñu bañ demee ci seen bàyyi dañ ko koo nettali ne ah loolu day gis nañ ko baax koo xam ne defal nañu teraanga daf noo rootal ba pare kolaasuñu kolaas fa saqaalahuma thumma tawalla ila dhil def lu baax rek dem <laughs> amul leneen def lu baax rek dem amul leneen amul laaj numéro téléphone amul foo dëkk amul dara thumma tawalla ila dhil moom dem yoonam wane ginnaaw moo tax repère parce que loolu mu def noonu repère boobu la ndaw si jàpp parce que bu fa nekkoon di wax yeneen nit da koy wax baayam de <laughs> loolu wax gaa yi li koy nettali moo tax bi mu demee dana gis naa ko dëgër gis naa ko maandu ko demal nga woo ko ma fay ko waaye lan la yàlla wax fa at jaa'athu ihdaahuma tamshi ala istihyaa nee ndaw si bi muy ñëw <coughs> di woo si Moussa nee na mu ngi dox ci istixyaa in ala istixyaa ala jumlati ay xaala kaw nii ndaw soos muy ñëw ci kersa lay dox kuy dox ci kersa nag tànki sax day xaw a mel luy jaxasoo kon aaya bi dafa ñëw ngir leeral melokaan bi nga xam ne ci adamu sifaatil mara la bokk muy alxayaa parce que dañoo dañoo wax ni xayaaul marati xayaatuha xayaatul marati xayaauha wala xayaaul marati xayaatuha kersak jigéen moo di ak dundam jigéen daanaka dafa mel ni kon ndox la euh, jën la ndox mi muy dund bokk na ci mooy kers waaye nga xool saxaaba yi ridwanullahi alayhi saxaabiyaat yi naka lañ dundee woon sàmm googu ak kersa googu ñu amoon bis yonent bi dafa am lu mu seetlu te mooy mbedd yi daal góor ñi jigéen ñi dañ fi rombante lu bari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne i'tasil na jaddata turuq yéen jigéen ñi bàyyi leen digg mbedd yi ngeen di jaar te bàyyi ko góor ñi fa kaanat ihdaahuna tulsiqu jilbaabaha bil jidaar nee na booba yonte bi mu ko waxee jigéen dañ daan dem ba seen jilbaa bi dañ ko daan xoos ci miir yi ngir bañ a jaar ci yoon wi anan xool loola nag ak lii moom kenn xool loola ak noonu li ñuy dund ba xam noonu la demee wala déet xam suñu jigéen ñi tey noonu la ñu moytundikoo confrontation ci dox bari na ñoo xam ni soo góorgóorluwul sax ñu mbëkk la yow kon liñ amoon ñoom mbokk na ci mooy nekk ki nga xam ne nekkoon nañ ko di melokaanoo melokaanu kersa hmm, yonent bi sallallahu alayhi wa boo déggee mu ni njagamaar mooy ku sa ta dem kër suñ koy mayee foog ñu laaj ko nag waaye buñ koy laaj day am kersa ba du mën a tontu yaa Aysa bi muy may Aliyin ma dafa ñëw fekk fa ni ko Aliyin de laa la bëggal fa tabasamatu sakatan yonente bi sal xalaas intaha yonente nee na bu dee njagamaar la boo ko waxee mu noppi rek d'accord na lu tax waxul lan moo tax bu dee jigéen ku mos dem kër mu ne tusta amaru dañ koy laaj ndigal dañ koy laaj mu wax bu dee njagamaar mu ne tu tusta zanu dañ koy yëgal ñu ni waaw jigéen ji mos sa dem kër ñu koy wax wax yooyu nu muy joxee loolu yonte bi ni sukutuha wala simaatuha bu noppee rek lan moo tax loolu mooy am kert <coughs> am am kert kersa googu moo leen yóbbu woon yàlla wax na ci waa kër yonent bi neen yaa nisa annabii lastunna ka ahadin min annisa in ittaqaytunna fala taxdaana bilqawli fa yatmaa alladi fi qalbihi marad wa qulna soxna si yonent bi melu leen ni jigéen ñépp su ngeen dee waxaate bu leen fa nekk di neexale baataka wàcce ka yéegal da ngeen wax wax ju ndax bu ngeen ko defee ñi nga xam ne dañoo feebar ci xol dañuy am ak càkkutéef jëm ci yéen wala xemmem téef jëm ci yéen wa qul na qawlan maarufa wax leen wax ju dëgër te mu jeex est-ce xam ngeen ay bi kan lay digal loolu digalu ko maanaam ñi gën a suufee ci nit ñi de waaye ñi gën a sell ay xol la koy waxal ndax yàlla ñi mu tànnal ab yonantoom mooy ñi gën a sell ay xol ci jigéen ñi ñoom la yàlla adressé lii kon keneen ku dul ñoom min baabil awla yàlla lan la leen digal mooy adamul xuduuci fi l qawli di wax di logg-loggal ak def yeneen i mbir déedéet parce que duñ wax ni góor ñi bu leen wax ak jigéen ñi ah kay dañ wax ak ñoom duñu wax ni góor ñi bu leen nuyu jigéen ñi ah kay di nuyu waaye fal yaqul na qawlan maarufan rek dañu wax wax ju jub booy wax wax ju dëggu wax ju dëgër joo xam ne amul jàdd amul yokk amul wàññi amul leneen ndax yàlla illa bi mu ci teg mooy fa fii allati bi xalbihi marad jigéen bari na lu ko góor gu sàggan ñimee rek ci sarmu yi muy def la ci langage bi muy waxee la rek su ko defee ñu ne ah kii de moom naa puus ba xam dinaa am dara am déet ah parce que góor ñi góor na góor ñoo xam ne ci yooyu rek la ñuy dox moom sondage la ñuy def rek am na nooy répondre rek ñu ne ah fii de moom mën naa mën naa fi am dara waaye am na nooy waxee rek ñu ne ah kii de moom eh, saa yi kii moom saa yi nañ at nañ jàll loolu lañ bëgg ci jigéen parce que mën a dund ci àdduna bi yow kese nga nekk doo wax ak kenn kenn du koy wax ak yow en ah, kay waaye na fal yaqul na qawlan ma'rufan moo tax Safwan ibnu Mu'attil radiyallahu anhu ci xadisul ifk yéen ñëpp xam ngeen ko tuuma ji ñu tegoon ci kër yonante bi sallallahu alayhi wa sallam di soxnaam sa radiallahu anhu parce que yonent bi daf daan def bu xare amee dafay am ku muy bàyyi ci ginnaaw pour muy topp armée bi lu rot moo koy for bi ñu defee campé bi ñu campé nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi woon keroog Safwan ibn Mu'attal ci atum juróom-benneel bi comme ni ko waxee te moo gën a dëppoo li am wala mu xaqiqoon yu bari loolu lañu wax atum juróom-benneel bi ci gàddaay gi ci xasatu almuraysiyan mu bàyyi safaan bi mu àttal ci ginnaaw ñu def ñu campé fenn yaa Aysa génn ci xawdaj bi ñu ko dugaloon dem ñu jël ko xawdaj boobu dugal ko te yaa Aysa ñëwul <coughs> yaa Aysa bi ñëwee fekk na arme bi dem mais xam na ni yonent bi da daan faral di def nii dina am ñu nekk ci ginnaaw mu ne ñooñ bu ñëwee dinañ ma jël moo tax mu daal di tëdd far nelaw fa bi Safwaan ibn Mu'attal ñëwee ba agsi ci seen ko seen lu ñuul nee na mu xam ne loolu nit la bi mu yëgloo ba yaa Aysa jóg mu ni xàmmee naa ko parce que booba xamoon naa ko avant jël maanaam muuraay di wàcc nee na li ma dégg ci moom genn kàddu la yaa Aysa mooy wax de euh, kii mooy wax de euh, Safwaan nee na in inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kàddu googu képp laa dégg yaa Aysa wax ba nañu duggee Madina waxaatu nag man genn kàddu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun jigéen ñooñu nii lañ meloon nii lañ sàmme woon seen bopp nii lañu waggare woon seen diine moo taxoon nag li leen yàlla mayoon mu may leen ko parce que yàlla day may ala kulli xaal kon al ak am kersa jullit bi baax na ci ku nekk de waaye ci jigéen la raw ndax li yàq jigéen yàqul góor li yàq jigéen yàqul góor de bi ci des mooy xayaatuhunna fi tarbiyatil awlaad wa tawalli wazifatil bayt jigéen ñi njëkk ñi ak niñ doon yare seen doom yi nag ak niñ taxawoo woon seen kër yi ndax yaru jigéen doomam ci kër man manzile bu màgg màgg la am Abdullah ibnu Zubayr yaayam daf ko daan yar yarin woo xam ne te mooy Asma bint Abi Bakar dafa am sax ñu daan ñëw naa ko yow sa doom ji dama koy alak mu leen bàyyi leen mu ko bàyyi leen mag sama doom ndax bu yàqoo man la yàqul bu yàqoo man la yàqul am na jigéen ñoo xam dañoo dëgëru lool ci seen doom yi wax ñu ngay mbugal déedéet xam xale kenn du ko mbugal waaye des koy jubbanti waaye boo xoolee jigéen ñu bari nag lu ñuy tane seen doom yi nag wax dëgg yàlla du bari loolu xam naa am na thème spécial boo xam ne Cheikh Mor dina ci ñëw te mooy li leen ko xañ nag da cee bokk mooy kii iPhone iPhone 14 mu iPhone 14 xaw iPhone 12 xaw ma lii daal moom li leen yàqal ci jamono ji bari na lool talatu dara dara dara dara loolu xoos rek nii di ëf di puus loolu mënut a jëm kër loolu mënut a wéy di ci àdduna bi si xaal. fa am benn liggéey bu mag bu lay xaar boo xam ne euh, ci sa loxo la nekk waaye yor kër ak taxawu ko jigéen ñu bare bare jàpp nañ ni parce que boo gisee euh, ñu naan barkeb kër jigéen nangam sama sonn ci sama kër waaye kër goo xamante ni boo góor góorgóorlu ba góorgóorlu togg ngay def waaye ku góor ki mooy fóot mooy fay ñuy fóot mooy jël mbindaan mooy bale mooy defar kër gi ndax moo jël mbindaan boo xewal sax moom mooy togg ndax mooy indi kuy togg yow loo def nga jàpp ne waroo def dara ah duñ leen ko iñaana de waxa kay waaye nanu dellu kër yonent bi nag ak waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi moo wax ni <coughs> Fatima daggit la ci man ku ko merloo merloo nga ma ndax Fatima dafa nuru woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa Aïcha nee na bis maa gis Fatima muy dox doxin woo xam ne comme bàyyi moo tax bi Aliou bëggee takk ñaareel sax yonent bi dañu ko kon nga bu Fatima <laughs> waaw ndax dañu ko ki nga bëgg a takk doomam moom di Abu Jahlin ñoom ñaar kooku du du wujjeeg sama doom da ko bëggoon sallallahu alayhi wa ànd ak bëgg gi yëpp Aïcha bi Fatima te ku ndaw lool woon ku tuuti la woon amuloon aw lef bi mu demee ci kër Ali liggéey bu metti la fa doon def ba mujj loxo yi dafa futt mu dem ni damaa bëgg a dem ci sama baay mu wutal mu mbindaan te booba baayam mooy kan mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci wàllu diine waaye waxuma état mais presque ab la jiite kon am na alal ji laa la bëgg a wax te am na sañ-sañ bi comme ni woon demal nekkal ma kër Fatima sax doo ko gëm waaye bi mu ñëwee mu ne ko damaa bëgg nga wutal ma mbindaan yonent bi ne ko ndax du ma la jox lu gën mbindaan kaay ma jox la lu gën mbindaan soo demetee bay tëdd na nga def subhaanallahi walhamdulillahi wa laa ilaha illa allah loolu mooy seen mbindaan demal sallallahu alayhi wa sallam ndax da ko amul woon lu mu ko joxe mbindaan ah kay waxuma la moom bu am bu ko amul woon sax mais saxaab yi comme ni woon demal ma kër Fatima ñu jigéen ñi nekkal ma fa rek doo ko gëmee ndax da ngay jàpp ak jaamu yàlla liggéeyal yonent bi la comme ni ko suñu kilifa yi di defee daanaka bi def daara doomi jàmbur la ñu jël jàll leen ñu leen di liggéeyal mais yonent bi néewul kenn demal nga toogal ma ci kër Fatima di ko liggéeyal. dana ko boo demee te bay tëdd ñaanal ñaan gii te nga doy loo ko mooy mbindaan kon ngeen gis ni jigéen faw day sonn ci kër waaw togg di yàq di rooti di taxan di tàppaato yi ca teen ba loolu am suñu mag ñi dañ ko dund suñu mag ñi quatre heures du matin lañ daan jóg dem ca teen ba teen bu du am ndox la dañ koy tàppaatu nasal nasal ba bu ñuy bu seeni ndaa di fees dañuy nodd fajar ñu boot seeni doom bale ëtt bi bale ba pare lay ko waxuma la bale yam ci de ab ëtt bu mag ñu bale ko ba pare lay ko ba doon ab ruum ba xam ne bant bi gën a ndaw doo ko fa mën a for am sàq dong lañ leen daan joxoñ am sàq xam ngeen am sàq mooy loo xam dañ koo góob rek tëral ñoo koy jële ca sàq ma ba def ko cere ñoo koy bojj soq ko wal ko fajar ñi yeew ñi yaroo ci këri kaw yépp xamoon nañ ni fajar li nga daan dégg mooy lan kàndang kàndangook lan gën ay jeeg di ko man ñu suub waaw ñu ko ñu koy ñu ko ñu ko ñu koy ñu koy awante mu neex lool moo tax nag wax dëgg yàlla fi tànn ñoo ko fi indi de ñi fi tànn ñii di góorgóor di xool xoolal ko su néew mag ñoo ñoo ko fi indi parce que yàlla inna allaha la yudiu ajra al muhsinin yàlla du sànq ku sonn ku sonn yàlla du sànq mukk sa jëf alhamdulilah àdduna nag avancé na xëy na bu la baree bare amatul waaye nag ñu xam ni liggéeyu jigéen ci biir kër jaamu yàlla la jaamu yàlla la de te jaamu yàlla nag bokk na ci la koy sàmm mooy bañ a jàmbat waaye yow daanaka loo def boo boo xëyee toog ba ngoon sax damaa sonn damaa yendu ci waañ wi te am na ñoo xam ne dañ daan yendu waañ wi yenn fanaan ci teen bi def loolu lépp kon ala kulli xaal bi ci des mooy bu mujj mooy alxulul yan xàll nag la ñuy jéem a wut pour xëy na mën a dabaatal ci yi nga xam ne gis nañ ni yu ñu war a dabaatal la ci sunu ñenn mbokk jigéen ñi nga xam ne du ñëpp nag comme ni ñu ko waxee am na jigéen ñoo xam ni macha allah ay jàmbaar lañu ay ay gan gayndey fàkk tëdd lañ waaye nag ni mu amee ci góor ñi rek ñu sàggan noonu la amee ci ñoom ala kulli xal léegi nag nan la ñuy fexee ba ñu indiwaat ay jigéen ñoo xam ne danañ mën a jur ñoo xam ni danañ mën a taxawu àdduna ndax loolu laa sakk ni mooy dëgg-dëgg nag am soloog li ñuy li ñuy waxtaane ndax soo waxee problème war ngaa indi solution bi ci njëkk mooy dirasatu sirati sahabiyaati wa saalihaati lawaati kunna ummahati alaamil huda wa masaabihi duja mooy jàng dunduk saxaaba yi ak ñu topp seen ginnaaw ñépp ba sunu jamono jii sax ñuy dund ci ñi nga xam ne ay jigéen ñu baax lañu woon ñu sàmm lañu woon doon ay model ñuy jàng seen siira ndax yàlla na jàng siira ko baax day tax a baax wa kullan naqussu alayka min anbaai rusuli ma nuthabitu bihi fuaadak wa jaaka fi hadihi alxaq wa mawizatun wa zikra lilmuminin la yàlla wax yonent bi salallahu alayhi wa sallam dane ko maa ngi lay nettali xisaab yonent yi la jiitu woon ngir nga dëgër ci waaye ngir nga roy ci ñoom kon ñuy fexe am ay programme maanaam siiratu saxaabiyaat saxaaba yi du yem rek ci saxaaba yi mais nit ñu baax mais ba ci réew mi ndax fi ne nii réew mi que ñi baax dëgg-dëgg sax tudduñu leen fa mel dafa am benn lampe bu ñëw rek bëgg a fay làmp yu bari yu doon tàkk mais am na fi ay jigéen yu baax yoo xam ni fa tabaarakallah ñu ngi may nettali seen su ndaw soo xam ni doom ji dafa dawe daara ja ñëw bi mu yégée ne doom ji dafa dawe daara joob dafa ñëw sukk ci jëkkër ji ni ko man de xooma lu ma def xam naa ne am na tooñ gu ma la tooñ ba tax yàlla na toomali lii dama bëgg nga jéggal kooku sëriñ bi ku jar xam a ngi noonu sëriñ bi te du ko yàgg mu ngi dund ba léegi kon ñuy jéem a xam ñooñu ak ñu mel ni ñooñu di jàng seen taarix ak di ko nag jéem a roy nag ndax ñun dañoo jàpp ne siira moom fittasu rek ci topp wax ñuy fittasu boo amee ñaar fukk joxe boo amee juróom joxe déedéet siira mooy lu ñuy jàng pour topp ko yontu bi sallallahu alayhi wa sallam li wax ci jàng siira maa nu sabitu bihi fuaadaka la wax lu ñu la dëgëral la pour nga roy ci fa bi hudaahu muqtadi jubal seenu jub la wax <coughs> waaye nag bëgg ko def noppalikaay ak xadisu saa ak yéemu di wa baaxu loolu kay moom kenn mënut a mel ni moom dee dem bal naquluha ila ardil waaqi fexe ba loolu ñu wàcce ko ci sunu dund jariñoo ko bi ci des mooy taxamulul ma taxamulu masuliyati tarbiya fexe nag góorgóorlu waat takkaat suñu ndigg ci wàllu yar ndax bàyyi yu baree baree bari nag lii dal xale yu jigéen ñi ñoo leen ci bàyyi infilaatun min sultati diini wal axlaaq maanaam rëcc nañ diine rëcc nañ jikko yu baax ndax lan maanaam amatuñu benn relation bu dul boo xiifee ñu jox la nga lekk doo rafle loolu rek mooy seen relation ak seeni doom rawatina jigéen ñi waaye fu ñuy yendu fu ñuy xëy fu ñuy gont yow sa yoon nekku ci dañuy wax euh, sëy yu tas yu bari yi sëy bu ñu takk téeméeri sëy yuñ takk balaa déwén quatre-vingt yépp day tas zahiratu yaani bu doy waar lu loolu dafa am lu ko war mooy jigéen ñi dañu leen a waajalatul ngir dem kër sëriñ bi même école sax bu ñu la fay yebal pour nga jàngale dafa am école de formation bu ñu lay jaaree boo xamante ne pour former la nooy jàngalee la boo jàngoon université ba génn yor say diplôme xel xam-xam baa ngi fi mais noo koy jàngale da ngay delluwaat ñu defal la formation nooy jëfandikoo xam-xam bii jigéen dañ koy jàngal lu muy sëyee bu njëkk jigéen ci penkum ndayam la daan nekk ci wetu ndayam lay toog mu di ko jàngal boo demee kër nii la ñuy def nii la ñuy def def mais jigéen joo xam ne bis bu ne mu ngi ko saagam mu ngi ci mbedd bi sëriñ bi ba li muy am mooy sóoba dañ ma may mariage xuma lan première kado loolu daal moom bu la xasee romb jeex na kooku daanaka bu demee du fa toog du xam nu muy waxee du xam nu muy jëfee parewul na moom pour muñ dara moom ndax dañuy wax ne bàyyi day yàq jigéen sa bàyyi bi nga amoon mu lay negg neggal loo bëgg mu nekk ca kooku fekki woo bàyyi jëkkër ngay fekk bu jàpp ne bàyyi ba nga bàyyi sa kër moom ngay fekk déedéet kon nag ñàkk gi leen ñàkk waajal tax na ñaare ku ca dem rek bëgg a jàppee sa këru sëy sa kër bàyyi doo fa toog kon fokk ñu dellu si waat ci yar ñu dellu si waat ci yar bi ci des mooy maarifatu mansilati mar'ati fil mujtama ñu xam tamit jigéen ban rôle la am ci société bi ba bu ñu amoon benn góor ak jigéen di ko xëcc ci ñu jox ko jigéen rawatina ci wàllu jàng xam nga noonu da ngay dégg ñu naan njàngum jigéen amul solo Oustaz Alioune Guèye rahimahullahu taala nee na koo dénk sa bopp dénk ko sa njaboot dénk ko sa biir ba pare ne wurta jàng njaaxum am na say doom moom nga ko dénk loo sol moo la ko fóotal loo lekk moo la ko toggal ba pare nga ne wut a jàng sëriñ bi yow xam nga li ngay wax loolu sottiwut ba tax na jigéen bu doon dañuy wax ni yow benn saleer rek nga am walla benn payaaf rek nga am góor a jigéen a ngi fi na jigéen ji dem jàng li ñu bëgg a wax foofu mooy kon nañu fexe ba jigéen ñi ñu jàngal leen lu ñu mën nag waaye ñu yar leen ndax boo gisee saaxa bi ni mu widdee maanaam asaaxa daawiya vidde bi ci am ci ay jigéen yi ay liet naa yu mag yoo xam ne dañ leen waroon a am ñu taxaw di di di di dajeeg yàqkat yi nii parce que la léeg gis as ndaw soo xam ne as coox su ndaw barki démb la juddu sëñ bi wow bët xam nga di góor mu di wax ak jigéen dalay kii wax la dootoo mën a xam foo jàpp mais jigéen moo mën a wax ak moroom jigéenam mais bu ñu amoon ay jigéen ñu ñu jàngal yar leen ñu am ay mustawaa yu kawe ci wàllu diine kon ñu ñu bële ak écrasé nañu ñu jóge fi mais malheureusement ñoom rek a fi nekk nekk comme si ci benn cin foo nekk ñu wallax wallax nja wallax wallax plateau boo dem fekk leen fa parce que amul ñu ñu ñëw di géta ngaa santeeg ñoom tax na kon nag maanaam dañu amaat rôle bu mag ci suñu doomi jigéen ñi <coughs> ñu gën leen a jàngal gën leen a yar mais gën leen a ba ñu wàcc ci terrain bi mën a jariñ seen diine ci côté bañ ma ne su ko defee loolu dinañu mën a relever ay defi yoo xam ne yu baree bari la yoo xam ne ñu ngi koy sànni jigéen ñi di ko sànni lislaam rawatina euh, réewi occidentaux yi xam ne jàpp nañ ni lislaam moom dafa delloo ginnaaw jigéen da ko toroxal da ko nàngam te lool dara du ci dëkk dañuy ruube rek ak yàq ndax ku dem seeni réew ba xam na fa jigéen di dunde di nga xam ni joxuñu jigéen ak xam ñu baree bari jigéen objet rek lañ ko def objet rek lañ ko def soo bëggee jaay daal jël jigéen futti ba mu def yaram mu neen nga teg di ko jaayee su màggetee wala mu ras nga sànni jël keneen waaye yu mag yee mag a mag réew yu mag yi ngay dégg yépp benn présidente mosu ko faa dégg Amérique su ngeen faa dégg ak présidente France nag mosu ngeen faa dégg ak présidente loolu ay caaxaan la bu fekkoonte ne liñ wax dëgg la dañuy wate loi boo xam dañuy wax ne jigéen saay su wàccee góor a yéeg ak ku mën a doon su jigéen wàccee góor yéeg bu jigéen wàccee góor yéeg waaye loolu defuñu ko gis nañ ni jigéen ña fay dem élection yépp dañ leen di baat Marine Le Pen comme doon demal 38 ans xam nga 39 ans am mais dañ dañ ko baatal Hillary Clinton comme doon demal da koo baatal pour temps ñoom sax suur ñu wax ni góor jigéen góor jigéen loolu dañ ñu koy naxe noonu danoo am diina joo xam ne ba muy jox jigéen àqam boobu sax juddoogul ba mu nekkagul dara lañ ko tànnal yaay ju baax ba mu nekk ci biirum ndeyam ba génn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégg li wax ci jigéen ku ko yor rafetal jëme ci moom ñu dox sa diggante ak aj sawara loolu yàlla da ko wax ci góor li lépp ay toppale la kon xam naa ni foofu lañuy taxawlu hada wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajmain wa rabbana allahu taala alamu wa nisbatu alilmi ilayhi aslam naam jazakumullahu xayr ñu ngi ñaanal taal taal taal boobu dox ñaanal na ko yàlla subhanahu wa taala doon ndax defe naa li mu fi li mu joxe sax mooy dàggante bi mu dàggante ci loolu am na solo loolu ñetti tomb fàccewaat dafay jël temps waaye dama bëggoon oustaz incha allah mu ñëwal ñu ci ñetti tomb yoo xamante xaw a lëj ci sunu jamono ji nekk la bi ci jëkk mooy li muy wax ci wàllu kersa ndax léeg-léeg kersa ni ko jigéen ñi jàppee dana dem ba dugg ci seen biir négocié ñëw ak seen borom kër kersa daal day feeñ muy lan ndax loolee nan lañ ko war a saafara ndax jigéen su fekkente ne dafa war a am kersa ba ci biir néegam wala kersa gi moo ñeneen ñi la incha allahu loolu am solo la ñaareel bi tamit imam wax na fi lu am am solo muy wàllu liggéey nee na liggéey bañuñu ko islaam bañu ko waaye dafa am nu mu ko régulariser léegi nag dañoo bëggoon incha allahu mu ñëwalaat ñu ci jigéen buy génn di liggéey yi yan comportement la ko islaam wax comme moom moon taxoon a jóg tey mu fexe incha allah mu dikkalaat ñu ci wax na ci tamit loo xamante ne lu jar a bàyyiwaat xel la mbokk jigéen yi te nee jigéen mooy njëkk école bi nga xamante ne ci la doom bi di jaar ma ne dafa fay wax lu ma tiital lool nee na bari na ñoo xamante ne seen yaay am ma jëm naas ñoom ñoo leen ko tëralal waxuma amul de ñun de Ndar bu njëkk ba amoon na waaye léegi nii góoma ndax bari na du ne amul nag comme ni oustaz waxoon sànk damay bañ duggaat ci loolu euh, dafa am benn jigéen joo xamante ne sëriñu daaraako ko yore woon sëriñ daara ba génn mu war a ñëw jàng aw bind bi mu ñëwee mu ne ko ana sëriñ bi mu ne ko dafa génn mu ne ko lan la woon mu ne ko damay jàng mu ne ko ban téere nga yore mu ne ko asmaa yi mu ne ko ci ban bunt mu ne ko nàngam mu ne ko fi mu tëdd ci kaw lal bi de mu ne ko ubbil mu ubbi ndaw si di ko saa waa ji ne doy na mu soog a dem yoonam maanaam kon pour wane ni jigéen yi góor góorluwaat ci seen njaboot yi pour ñu jàngal leen lu mu néew néew même bu nu mënul fer iji foofu la jiitee maanaam boo ci mënee dem ba am ma baax na nee na gànnaar boo fa demee jigéen yi ñooy mokkaloo xale yi ñuy soog a dem ca daara ji kon loolu jigéen yi nañ ko bàyyi bàyyiwaat xel bu baax a baax xool ban système ngeen di jaar ba fexe seen i njaboot ñu njëkk ci seen yéen ci yéen ngir ñu mën a mokkal lenn ci alquran wala sax ñu mën a faire iji beneen bi ci tegu nag te xam naa ne fa lay mujje loolu benn laaj la mooy liggéeyu ndey añu doom imaam incha allah kooku tamit bëggoon nañu lool nga waxal ñu ci liggéeyu ndey añu doom sonal na léegi xeet bi lool boo nee nii rek ñu ne waaw sa man maa ko fi liggéey ak nangam nangam naam loolu incha allah duma ci sori bi ci mujj mooy jigéen ñi laay laaj ndeyale bi oustaz wax léegi ndeyale nga xam ne éducation bi li ci ëpp mooy nee na papa ji mënu ci dara lu tax papa ji bu xëyee suba la muy indi ca kër ga loolu la yittewoo loolu la yittewoo moom bu xëyee rek dem na njaboot gi ki leen war a yar mooy ku jigéen ki moo ci war a ëpp solo bu demee ba tey naan ko sa papa de bu ñëwee dinaa la boole gis bu njëkk ba boo waxoon sa papa bu ñëwee dinaa la boole rek yow da ngay mel ni ku nu sotti ndox nga ñëw ci yaay di ko ñaan ne ko bul ko wax sam papa dinaa def li nga wax kon loolu oustaz wax na ko ci léegi nag jigéen ñi laay laaj ndeyale kan moo ma ko mën a oustaz su fekkee may nga ma ay kon baax na indi question yi kon baax na après loolu incha allah oustaz nee na dina ko tontu kon euh, lii mooy li nga xamante ne mooy li oustaz doon leeral ci tomb bi nga xamante ne moom la doon leeral leneen lis des micro baa ngi noonu ci jigéen yi képp koo xam ne am na question bala oustaz di tontu yi xëj na yooyu ñëw incha allah mu baax di ko ci boole asa wa sallam ah nga tontu yi xaar yi waaw ñu laaj ko direct waaw incha allah baax salaamaaleykum wa rahmatulah. jàng nit ñi moo ne nag dañ leen jàngal ci biir kër yi ku nekk ñaar yi mujjee que ni maa la dàq téye sama jëkkër wala maa la def nii wala daal donc lépp loo fay def pour que ñeneen ñi gis ko pour ñu mën a apprécier mën a wax ni kat kii waaw gumba alors sëriñ jaam yàlla dafa sew ba nga xamante ne loo ci def te def ko ngir yàlla lu mu rëy rëy loo ci sax sax sax yàlla ko fay ndax yàlla li mu gis li nga war a gis ku nga gis rek moom lay gis mais bu fekkente ni ñeneen la woon bu loxo yi bu ñu gisee loolu bu maanaam gis nañ buñ fa soo war a dañuy fàttali woon xëy na léeg-léeg am am yi demee woon noonu moo tax ñuy jàpp ci lu ni mel mais ñu fàttali ko ne jaboot ki nga andi yow yaa ko war a yor yow yaa ko nañu xam ki nga dénk sa jaboot danga koy ette duggule andi na ci faani lañ ko bindee duggul kon ñi koy jàppalee pour mu ngi ak njaboot gi ndax moom moo aay ci njaboot mais il faut que li ñuy wax ak ku ko coach ndax léegi dangaa wax ni jigéen ñi mooy mooy bërëb te moo fi nekk bu sàgganee rek kon lii day dugg kon nag il faut mu am ku ko coach ndax képp coach mooy bërëb kër moo koy doole moo koy yëkkati moo koy jàppale ba nga xamante ne yan bi ñu yan dina woyof mais ci diggante bi boo ko demee kër benn mbokk nga waxul suba ba guddi ndax loolu julli sax rek dara jàngoon alxuraan bokk ca lañ xamoon ba ñu suñu fa la yem te doomu nit nit la mënoo ma soumettre yenn situation yi ba pare ngeen ba léegi da ngeen naay fi yéen ñëpp jigéen ñi su ma ko déggee rek daf may xaw a naqare et tamit xam naa ne ñu ban ñu ngi koy dund. macha allah barakallah dama ko di gis ne xale yi wax dëgg yàlla dafa kaw yàlla mais ndax la góor ñi nañu sédd cër njaboot yi. pour nit ñi rek moo tax ñu fa jaaru yàlla bi mais léeg-léeg day baax nga ñëw. da ngaa ko fekk na si jàppale ak ko ak bëri loolu mais ku ci am looy def ku mën ci seen bopp nga def mais dem yóbbu la daara ak ma sha allah jazakallahu xayr waadix alfikra waadix naam keneen ñu gàttal question yi rek incha allah li ñuy wax mu ñu ko comprendre rek incha allah xool nuñ ci indi ay solution incha allah naam bisimilah. bisimilah. yëkkati tuuti sa baat pour ma comprendre li nga wax. waaw jigéen ñi nga xamante ni dañoo nekk ci biir kër. bëgg a yar seen doom ci islam euh, kër gi ñu nekk maanaam milieu favorable maanaam. naam keneen bismillah naam naam bismillah waxal ci kaw tuuti waaleykum salaam wa rahmatullah ah non loolu kay laajoo c'est pas Barcelone d'accord non انتهى السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله nan la nan la borom kër tuuti. mu ni wàcce tuuti kii bi laata muy dugg ci sëy waaw dëgg da ko doon wan diine waaw léegi génn waaye da koo da koo sariya islam yi dugal ci position boobu. waaye dëgg la asalaamaaleykum wa rahmatullah. naam bismillah intaha. bismillahi rahmani rahim. salaatu wa salaamu ala rasulillah wa alihi wa sahbi ajmain am nañ fi ay question bu njëkk mooy boo xam ne Cheikh Sarif moo ko wax mooy ci bu ñuy wax kersa. ci diggante ji maanaam ci jigéen mu ne dafay dem ba day àgg ci biir euh, néegu sëy ah déedéet loolu moom euh, du mooy kersa bi ñu wax kersa ak faiblesse sax dañoo bokkut dafa am ñoo xam ni li leen dal du kersa waaye faiblesse la islaam nag bëggul jigéen nit ku faible al muslimu al qawi xayru wa ahabu ila allahi al muminu al qawi xayru wa ahabu ila allahi min al mumin al daif wa fi kullil xayr kon diggante boroom kër ak soxnaam moom la ca yàlla daganal lépp lu dagan la kersa àggut foofu li des mooy jigéen ji nga xam dafay génn di liggéey lan moo ko tënk ala kulli xaal benn mooy tabiatu liggéey bi ci boppam li muy liggéey doon loo xam ni dagan na ci jigéen mu liggéey ko xam na liggéey yoo xam ne jigéen mënu koo liggéey bu fekkante ne liggéey boobu dafa doon liggéey boo xam ne góor rekk ko war a liggéey jagarul jigéen ji muy liggéey liggéey boobu ñaareel bi mooy na doon ku sàmm ci colom bépp liggéeyukaay boo xam ne dangay liggéey ñun la doo fi muur wala doo nangam bàyyi loolu te yàlla tax yàlla dana def lu ko gën ba ca desit mooy mu sàmm waxtu yi génn ak waxtu du duggam waaye góor ak jigéen ñoo yem ci ay da ngay liggéey ba waxtu wa jeex ngay wut ay heure supplémentaire bëgg a jëm xaaju guddi loolu moom du mbirum jigéen yooyu daal bu ci muccee insha allahu taala jigéen ji dana mën a génn dem liggéey ñaan gi nga xam ne moom lay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam joxoon yaa euh, Fatima bay subhanallah ñett walhamdulillah fanweer ñett laa ilaha illallah fanweer ñett sooy dem bay tëdd nga wax ko loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defoon beneen question bi mooy problème bi nekk ci kër yi nga xam ni yaay ja ak baay ba dañuy liggéey loolu lu leen lislaam di sant ah lislaam ne na demoon jigéen ñi na dem toog ci kër gi yar doom ji ginnaaw nag moom génn na liggéey ah kooku day problème am na de ndax doom ji moom ñaare doo ko mën a yóbbu fa ngay liggéeye te am na fu gone di toll kenn du ko mën a dénkaane wala saa yi soo ko dénkaane it di am lu la naqari bari na ko jël ab liggéeykat mu di la liggéeyal nga jël as ci wopp su ndaw bàyyil ko waaye su màggee jëm fenn di tuuti rek nga xam ni defal lañ la ci lu la neexul la la cee njëkk a naqari nag mooy doom jëm moom mën na laa bañ a jubu sax moom bari na ñoo xam ne ñi leen yar ñoom la ñuy gën a yëg ci seen ndey ji leen jur mooy ay conséquences yu bari waaye almuhim su demee ba lor rek fi ses te ñoom fokk ñu dem liggéey ndax loolu lañu ñu gëm ah nañ jéem a trouver ay solution nag yoo xam ne moom xale bi duñ ko sànq ndax ginnaaw ñoo ko fi indi moom seen njariñul bopp war a tax ñoom ñu sànq ko nan ko wutal barab boo xam ne dañ ko fa mën a yar dañ ko fa mën a yor su laajee yit la ngay fayee ko nga dagg ci ab salaire bu baax wut koo xam ne diineem ak jikkoom doy na la nga wàcc ko ci sa kër mun lay yoral sa njaboot loolu dong jàpp naa ne mooy xàll bi ak nag yow nag nga jéem a fexe xam ni njaboot gi ci sa loxo la ko yàlla teg nga jéem a fexe mooy nooy wàññi sa heure liggéey yooyu ba gën a jege sa njaboot gi li ci des mooy am na ndaw su wax ni bu ñu yenn lépp jigéen ñi waaye góor gi it am nañ ci responsabilité ala kulli xaal loolu la waxoon moo tax dafa am benn wenn waxtu bu gàtt rek bu ñu wax ni diggante boobu boobu jigéen doo nga ko mën a xale xale bi juddu nekk ab liir ba keroog mooy am juróomi at pratiquement keneen ku ko yor ku dul yaayam da koy sànq bu ñuy wax ñu dëgg diggante boobu sax dëgg-dëgg moo tax ñuy wax xale bi nekk am liir yaayam mun bàyyi mënu ko yor bu jooyee sax dana joxal yaayam te ni moom juru ko dana joxal yaayam parce que heure boobu gone moom kenn mënta nekk ci yenn loxo lu dul loxoy ndayam waaye ba kar muy feet di nag bay am juróomi at dugg juróom-ñaari atam yooyu moom <coughs> loxo yi yaayam rek su ko génnee nag la chaque góor aha kay góor mooy mooy rubbaanu safina mooy capitaine wu gaal gi ndey jeeg doom jeeg ñépp mooy koy diriger moom ci boppam waaye misaal bi ma joxe ci commencement bi yaakaar naa ni bu ñu ko comprendre woon rek dinañ comprendre ñun lan moo ñu tax a jóg mooy taqsimul adwaar ab société boo fa demee dafay am directeur général mais département bu ne dafa am ku ko jiite ba gardien bi nekk ci buntu société bi sax liggéeyam dafay jeexintal ci directeur ba nekk ca kaw ci bureau ñu gëmee ni kër noonu lay doxee borom kër am na yu mag yoo xam ni moo koy yor. mais yi ci des nag am na koo xam ne yaa ko fay féete su ngeen boolee liggéey bi yépp nag mu mat mais nag moom mooy coordonnateur bi nag mooy coordonné liggéey yooyu yépp su ko defee bu ñu nee ndaw si yaa yor lii yaa yor lii da nga borom kër gi yaa yor lii nag yaa yor lii yor lii su ko defee ku nekk ak la nga yor waaye góor ñi moom la chaque ni ñoom bu lépp pare ñoom la yàlla di laaj sax nag ñoom la yàlla di laaj loolu kër gi ci boppam noo ko yore woon moom ñoom la ko yàlla di laaj la chaque ni kon ñoom seen responsabilité moom si téyewu na bu baax a baax ci wàllu éducation bi bi ci des mooy question jigéen ñi ñu bàyyi ci kër yi du ñu fekk jàng du ñu fekk dars du ñu fekk nangam yëg loolu moo tax ñu taxawal lii te insha allahu taala bëggunu mu yam fi bëgg nañ mu gën a yaatu jigéen ñi am seeni darsi bopp am seeni ndaje bopp di yokk comme ni jigéen ñi di yokk góor ñi di yokkoo la chaque ni moom ku yokkuwul ku nekk yaa nga wàññi ko te loolu moom ñun ñépp yëg nañ ko yëg nañ ni jigéen ñi wax dëgg yàlla daal nañu waroon di euh, teewee yi ak jàngale yi des na loolu moom ñëpp yëg nañ ko ala kulli problème la mais nag ñu ngi jéem a rattrapé lu ñu man insha allahu taala bii nii benn la ci te jàpp naa ni yeneen ak yeneen ak yeneen dina ñëw ku neexee yàlla ndax nettali naa ko léegi Oustaz Alioune li mu koo dénk sa biir dénk ko sa bopp dénk ko sa njaboot su jàngul musiba am ala kon ngeen ñaanal yàlla rek sunu borom may nu ndax euh, gravité bi sax nekkul ci fekk yaa ngi dund mais bakkan ci loxob yàlla la nekk xamoo kañ ngay dem bàyyi sa njaboot sa soxna bu fekkente ne kooku nekkul woon ku ñu préparé moom xamal ni bis ba nga faatoo sele sa kër di tasew te lu ñu gis lu bare bare la ñu xam ni seen bàyyi di dund alhamdulilah njaboot gu jàmbaare gu tënku la ñu amoon waaye ba fa góor ga jógee rek dañoo daal di saaw loolu nag ku nekk war nga ko préparer sa bopp wallahu mustaan naam bi ci des mooy orientation yi ñu jox jigéen ñi nga xam ne doon dund ci yenn bii ay nekk ci barab yoo xam ne xëy na diine taxul mu demee noonu ñëw ci yeneen barab yoo xam ne dañ fay góorgóorlu ci <coughs> sunna ala kulli xal loolu moom damaa jàpp loolu rek solution la jóge ci foo xam ni dawul ñu dund sunna tàgg si foo xam ni dañ fay dund sunna loolu mooy solution na fekk ni parce que problème bi mooy dund sunna du shiar daal du lu ñuy wax mais pratique la parce que bu doon chaar la loo xam ne dañ ko yor ni damay drapeau booy gàddu waaye pratique la nit ki bu ñëwoon damay dund sunna te dund ko tamit dund ko donte dafa wax ne da ko dund kon ñi nga xam ni dañuy wax ni dañoo déclaré ni sunna la ñuy dund solution la mooy ñuy jëlee fale di indi fii kon nag ko yàlla may nga jóge fu ñu daawul dundee sunna ñëw fu ñu dundee sunna ay ah yàlla fekk nga fekk fa koo xam ni dana la tett ci sunna bu dee pacte boobu it la jëloon yàlla ko ci yàlla dimbali ala li xaal lu war la ci ndoddam mu jubbanti ña nga xam ne ñoo nekk ci ay loxoom ndax jigéen moom su matoon luñ ko yar ba mu toll ni ndeyam ñu di ko joxe ndax góor ña toll ni moom kenn joxewu leen kon dafa am lu nekk ci ñoom loo xam ne ba keroog ñuy faatu dañ ko yóbbaale yonte bi moo ko wax sallallahu alayhi wa li zi lubbin min ihdaakunna loolu yonent na diine ju manqué lañ am ak xel mu manqué loolu wax yonent bi la du samay wax de bëri leen di dégg naa léegi nag gaaw por plainte nit yoo xam ne dajal woon ne dañ koy plainte lii bu ma ci kenn plainte yonent bee ko wax sallallahu alayhi wa sallam waaw kon ñu xam ko xamee ko noonu ba tax na képp ku yàlla dénk ci ñoom rek da ngay jubbanti yi di ca nekk ndax kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñeent yooyu dafa daan bi ci des mooy. ndax forcément la walla nangam jullit jigéen daal ci jàkk dagan na wax nañ ko dagan na jigéen dem jàkk ja julli ji loolu kàddu yonent bi la sallallahu alayhi na laa tamnau ima allahi masajid allah leen tere jaami yàlla yu jigéen yi jàkkay yàlla yi moom digalul yonent bi la sallallahu alayhi wa waaye nag dafa am lu gën moo tax Ummu Humayd Asaa'idiya bi mu ñëwee di yonent bi wax yonent bi yonent bi daf ko wax la gën te mooy julli ci sa biir kër de moo gën ànd ni boo jullee ci jàkka ji baax na <coughs> war na yaa Aïcha radiyallahu anha dafa wax ni bu yonent bi gisoon ni jigéen ñi tey ñii di jullee ji jàkka de dina leen tere sax jàkka ji ndax du farata ci ñoom te jamono yaa Aïcha la woon kon nag boo xoolee ba ci suñu jamono ji day gën a te kéemaan kii na rôle bi nga xam ne góor am na ko ci war na koo am ci soxnaam ci wàllu diine ala kulli xaal responsabilité moom bi góor am ci jigéen mooy wala bu góor jigéen góor am ci soxnaam yor yar yiir yërëm yor yar yiir yërëm ñeenti yaay yi moom ku ko def def nga la nga war a def ala kulli xaal waaye nag diine da caa war a mais nag problème bi mooy xam nga damay bañ mu am benn rivalité bu am suñu diggante mooy ju wujje yéen wax ngeen ñu lii yéen def ngeen lii loolu dama ko teel éviter ci commencement bi ni amul acharnement boo xam ne moom la ñu am ci yéen tey mais tey yéen a aye rek mais bu subaa noonu bu ñu ayee ba ma taxaw fii billaay dinaa leen dinaa wax góor ñi loo xam ne mooy gën a lii ñoom kenn demul ñu des ñoo gën a doy waar ci àdduna waaye gën a yéen a aye tey wax dëgg yàlla foog nu wax ci yéen it waaye du dañ leen a rek di wax ci yéen noppi ci ñun de ba ñëwaat fi ci ngeen xam ne ñun ñi kenn gën a ñoo doy waar almuhim nit ki dafay manqué dafa manqué nit ñëpp comme ni mu amee ci góor ñi noonu la amee ci jigéen ñi am ay manqué manqué bari yoo xamante ni day leen di gaar mais loolu nag tekkiwul ni nag wax dëgg yàlla góor gi jàmbaarewul wala nangam parce que yonante bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nit jullit du bañ bokkum jullitam soo bañee ci moom benn jikko fukki jikko yu baax a nga ci moom alkamaalu lillahi azza wa jal ku mat amut koo gis rek am na point faible am boo xam ne moom foofu rek mooy problème am yi xam ko kon ala kulli moom yor yar yiir yërëm waaw bi ci des mooy mbokk mi moo ko laaj mooy koo xam ne nee bi muy tàkk jigéen góor gi diine la ko doon wan mos naa gis ci fan yi ab euh, am vidéo buy circulé as ndaw naan man dama amoon complexe ku mokkal alxuraan xam nga loolu mooy erreur bi njëkk doon erreur ab sëy kenn ci dugg di am complexe bu dara ab sëy kenn dugg naan damaa am complexe bu nangam déedéet sëy principe la yoo xamante ne la la cay leer la waaye damaa am complexe ku am xaalis wala dama am complexe ku rafet wala dama am complexe ku mokkal alxuraan boobu nag moo la ci dugal bi mooy loolu tekkiwut ni maanaam mokkal alxuraan baaxul fa mokkal alxuraan nekkul démb fa la nekk ba tey jii ngëneel la yàlla defoon ci moom moom la def ci loolu ba léegi mais. ki mokkal alquran nag ak mokkal alquran bokkut kon ki mokkal alquranul karim xëy na am ay jikko yoo xam dafa wuuteeg alquranul karim tekki wut ni mokkal alquran baaxul wala ko mokkal alquran baaxul ñooñu ñooy ñi gën ci yàlla bind yonent bee ko wax xayrukum man taallama alquran wa allama su ko defee ki nga xam ne nag nee na bi muy takk soxna diine la ko doon wan mu dem ba ci biir gisul diine ja ala kulli xaal lu lu doy waar la maanaam diine la ko doon wan mu dem ba ci biir kon la la ko doon nax mu dem ba ci biir mu gis ni kii kat lim ko doon wan nekkul almuhim loolu yàllaa xam ndax noonu la deme ndaxit it wenn lay kenn mënu caa sukkandiku ngir àtte mbir mi fi mu nekk mooy ab sëy du kaso boo xam ne dañ la fay tëj loo mën a génn déedéet soo demee ba gis ni mënutoo faa nekk te boo continuer da nga fa moy sa borom lislaam moom danaa ubbi lay bunt ni mu amee buntub dugg noonu la amee buntub génn ñaan na ko baat lànk na waaye lislaam yemul foofu dafa am lu ñu tudd alxul summeeku su ko manee lam ko joxoon da koy dajale walla lu waaj mu jox ko ko ñu ko nga yéwi ma su ko nanguwul dëkk bi dëkkum yoon la nag bu boobaa yoon a ngi fi yoon moom ku ñëw ni ko damaa bëgg génn ci sëy moom te muy dëgg ci yow moom da ci génn te suñ sëyee suñ tasee sëy ba it sëy daal di tas kon loolu moo fi ñëw ci ay waaw

bis boo xam ne dañu ko mën a sëñ bi léegi lu ko wax yaayam xol bi kooku lay jaar wax kooku ñu ko conseillé loolu moom mën na ko ci yenn aada yi nga mën a ko sànq nawet bi amoon naa yow ay takalu bari ci yàlla mën a ko naam ala kulli xaal mabdaiyan am principe mooy aada yu bari yu baax la même bu pratique ba bonee sax jubluwaayu bi moom baaxoon na ndayele ci la bokk xëy na fi may wuuteeg yow rek mooy fi nga wax ni suñuy aada moo doon wax ni jigéen yaayam dana am kersa wax ak moom ci wàllu sëy loolu du aaday réew mi de bari na jigéen ju dem du sëy mënu am doom mën a am doom lu ñuy wax almaratu ratqa fekk na toog yi nu xale ni muy toogee donc dafay jeexintal ci ba bu demee du man a am doom loolu ñuy yar kër yi xam nañ ko lu ñu nangu jigéen tooge toogeen woowu soo toogee na naan dindil sa toogaay bi ak yeneen yoo xam ne yu la ci wàllu jigéen la aada réew mi ñun moom dañoo ñàkk suñu aada bu yàgg li ñu indil yépp ay falsification dañ ko falsifié rek dañoo xamul suñu bopp aslan li nga wax ci nii nag loolu loolu moom rafet la ndijaayale bàyyeele loolu moo doon cosaan pour defarle woon ab diggante soo daan gis ay doomi bàyyi di tuddante ay doom parce que wujje dafa daan am loolu lu nit xam la su ko defee nag boo jëlee sa doom tuddee sa doomi baay moo jël doomam tuddee la la sakkan lu bare bari dana wàññi loolu moo doon jubluwaay bi mais nag dañoo dem ba génne ko ci contexte boobu dugal ko ci fitna joo xam ne wax dëgg yàlla moom képp ko ñu dañ leen dayal sa fitni tëf wax dëgg yàlla nga sonn sonal say mbokk loolu moom moo doon cosaani comme ni nga ko waxee barakallahu fiik am na question bu ñu wax mooy liggéeyu day añub doom loolu wér na min jiha wérul min jiha am na côté boo xam ne wér na ci ndax alquranu karim moo ko wax wa kaana abuhuma saaliha yonente yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam bi mu génnee ànd xaadir dañu dem ci benn dëkk fekk fa benn miir bu nar a daanu xaadir ni dama koy jubbanti Moussa ne ko boo ko defee dan dan lay fay ndax da nga fay ñaan añ ñu lànk bañ ñoo jox añ xadir ni ko yow moom dinañ tàqali ko waaye nag dinaa la wax li tax ma di ko def mu ni wa kaana abuhuma saalihan kii ñii seen bàyyi ñu baax lañu woon kon loolu dañ ci teg tegtale ni baaxug waay jur dana wàcc ci doom mais ñu am aada nag ñoo xam dañ naan liggéeyum ndey añub doom loolu it mën naa wér liggéeyum ndey añub doom mooy nit ki li ngay def ci sa biir kër boroom kër la sakkan yàlla danga la ko fay te pay googu day rogalaat ba ci say doom kon jixa boobu mën naa baax maanaam yàlla fay la fayaale say doom waaye nag boo wëññi ko woon ci la dul baax mooy yàlla pinir la ba pinir piniraale say doom moom yàlla ko def xamu na xam nga loolu mu dem maanaam bu yàlla nangoo sa jëf jooju dana la ca fay ba wàcc ci say doom waaye nag yàlla du la punir ci bàkkaar boo def nag ba dugalaal ci say doom loolu da koy gis da gis koo xam ne nit ñi la bëgg jàpp la du yow lañ jàpp waaye sa waajur lañ jàpp dañ ci doomi diw ah sa yaay di ku baax la woon xam ne luñ lay defal rek ci sa waajur la ñu xool yow ba tax ñu di la ko defal loolu nag noonu mu amee noonu la walladina amanu wa tabaatuhum zurriyatahum bi imanihim alxaqna bihim zurriyatahum loolu alquran la kon ala kulli xaal mais nag ni ko bëgg a itlaaq nag xam ne koy naan sàngara ñu ne sa ndey ko liggéey déedéet loolu moom demewut noonu waaye nag nit dina liggéey ci këram yàlla fay ko ba fay googee làmbaale ay doomam hada wa sallallahu wa sallam ala asrafi al anbiyaai wal mursalin nabiyina muhammadin wa sal nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbi ajmain wa rabbuna allahu taala alamu wa nisbatu l ilmi ilayhi aslamu kon defe naa